mu mel na dellu na ci li Cheikh Al Hadj Malick daan wax ni bu ñu nee lu baax lii xajul ci àdduna aljanna rekk la xaj mu ni waaw comme kenn xamagul fu àjjana ne te kenn demagu ca te noo defarandi àdduna waaw xamuloo ni nit ki dee ñu sangu ko ñu sang ko sang ko suul ko def ci bàmmee rekk nga ca xam waaye boo ko ca defee ba noppi xamuloo ci lu mu nekk moo tax bu ko xaar loolu bàyyi ko mu def yiw di dund ca yiw ga su dee sa pexe jeex na ci yow wante bu deful dara di xaar aljanna adduna bu tukki la waaw ah? ndax àjjana lu mu rëy rëy àdduna daggit la ci moom boo ko daggee sànni fan ngay teg sa tànk pour dem na mënul nekk ndax sa bopp baaxul waaw mënul nekk waa tax Cheikh El Hadj daan wax ni ak ni mu xëree ci yonent bi ak ni mu xëre ci cheikh daan na wax ni yal ma yàlla musal ci àjjanay gàcce yal na ma yàlla musal ci àjjanay gàcce ñu ni ko luy àjjanay gàcc mu ne àjjana joo xam ni dañ may déey ni ma diwa tax ñu yóbbal àjjana yal ma ci yàlla musal xamuloo ni gàcce la nga dem àjjana ñu naan la diwal la fi indi gàcce la waaw ah? war nga góor góorlu sa góor lu bopp ba mu wóor li góor piir nga waaw bu la yàlla yóbbu àjjana mu yóbbu la ngir sa ngóora waaye naan la yonent sàngama tax wala sëriñ sàngam yàq la waaw yàq la yonent yi baax nañu nag kenn du leen weddi waaye ku sañoon yàgg yàlla rekk ndax ba mu lay bind yàgg moom rekk